analyser damay xool conséquences yi lan la lam la mën a jural ci ay jafe-jafe lii di réew mi lii di askan wi donc boo ko boo ko tegee ci table bi rek di nga mën a mesurer li nga xam te ne nii moom mooy euh, dayo mbir mi donc drogue moom ku ne xam na ne euh, du lu baax donte ne nag dégg nañ ci koppar gu bëri mais koppar googu nag la ñuy la ñuy jéem a def de telle sorte que ah dégg-dégg boobu ñu ci am ñu ñu rey ko ba mu dee parce que bu koo xam te ne bu melee ni man nekk naata xuuna dégg ñu ne am na xaalis rek ah, dina ko mos wala mu dem xool lan moo nekk ci biir <laughs> donc il faut ñu ñu xoolaat loolu daal mm. j'invite les les les les les dirigeants à ce que ñu ñu jël ci ay matuwaay yu am solo mi ngoog maître dama ko fàtte euh, mbirum Dof Ndeye euh, war na ci àddu léegi jëmale di jégg lu baax Ismaïla may ma tuuti rek ma sof ci loolu du noonu euh, gis na vidéo ndax da ngay buruxlu damay buruxlu <laughs> vidéo moo xew <laughs> bu viral bi nga xam ne ne def na ko ba côté ba mu côté woon ko mandat d'arrêt mujj gi ca lañ ko teg loxo ca ngeexoox wax loolee nag soobee fi mu ne nii ñu brigade territoriale bu kaw Kaolack euh, ñu mu nekk ci seeni loxo démb fanaan na guddim gu njëkk ca prison. non Dof Ndeye par rapport a ces cette vidéo virale bi nga xamante ne ñun ñëpp visionné nañ ko à la toile. parce que moo ko publier ci compte Instagram. voilà je crois que non man bi ma seetaanee vidéo yi j'étais vraiment j'étais vraiment ahuri. j'étais escamoté par cette situation. nan la nit mën a mën a mën a mën a mën a adonné wu en tout cas à à une pratique aussi ignoble nit ñu takk ay bëtam. Mm. il n'a pas la possibilité de se défendre. mu mm. nekk dans une situation de faiblesse. nga téye paaka mel ni kuy kuy kuy kuy ku yor loo xamante ne ni mais xanaa mala sax kenn du ko kenn kenn du ko defee noonu. Mm. et je crois que Dof Ndeye boo xoolee par exemple il est coutumier des faits. oui c'est pas la première fois pourquoi il des faits mooy mm-hmm. moom il a toujours été comme ça. Mm-hmm. dans sa fougue di wane ne moom. Euh, ku ko jege entre autres def ay vidéo menacé nit ñi de mort entre autres mm. nguur gam ko doon defee nag jéena parce que mm. si ma Macky sàll moom dafa moon meloon dafa amoon licence bu ko joxoon opportunité muy def lu ko neex te dara du xew sans d'autre forme de procès mais ci nguur gu bees bi nga xamante noo woote jub-jubal jubbanti mm-hmm. parewul en tout cas pour protéger kenn quel que soit tey jii ni yow boor bi nga bokk donc yaakaar naa ne bi loolu amee man satisfaction bi ma ci njëkk a am mooy mandat d'arrêt bi nga xamante ne émettre nañ ko à son encontre mm-hmm. et l'exécution du mandat d'arrêt à aboutit à son arrestation mm-hmm. donc ñu koy toppee en tout cas détention illégale d'armes ak euh, tentative de meurtre bien sûr et donc euh, mën na noon jort ne il s'achemine inéluctablement vers la chambre criminelle. Pourquoi il s'achemine inéluctablement vers la chambre criminelle Parce que mm-hmm. la tentative de de de de crime est toujours punissable. Mm-hmm. La tentative de délit est punissable lorsque la loi le prévoit, mais la tentative de crime est toujours punissable. Pourquoi? Xam nga La, la tentative est punissable lorsqu'il y a un commencement d'exécution et une absence de désistement volontaire. Mhm. mooy bu fekkente ne commencé ngaa def si xeetu ñaawteef. Mhm. te li tax tey jii ak àggaliwoo am intention bi ñu ci amoon dépendre dépendre ci yow ci keneen la. ci keneen la xam nga tey jii par exemple bi ngay seetaan vidéo yi. Mhm. waa ji dafa rëcc daw. mais moom mën na noonu njort ne par exemple buñ ko bàyyi woon ak waa ji mu continuer da koy rey. voilà donc. waa ji dafa rëcc daw. tey bu fekkoonte ne par exemple bi ñuy suivre vidéo yi dafa am beneen tierce personne moo ñëw intervenir du si yaay situation bi bu booba na nanoo wax ne par exemple euh, amul absence de résistance volontaire mhm. mais situation bi nga xamante ni vidéo bi moom la révélé mhm. mooy moom mhm. intention bi mu amoon carrément mooy faire du mal donc bu fekkente ne commencement d'exécution am na absence de résistance volontaire am na rek la tentative devient punissable et je crois que ce sont sur la base de ces éléments lañ ko placé sous mandat de dépôt et faits yi nga xam ne ni moom lañ koy toppee c'est constitutif aussi de circonstances aggravantes pourquoi c'est des faits yoo xamante ne ni c'est des faits constitutifs de circonstances aggravantes parce que déjà moom mi ngi wax ñu filmer kii filmer dañ war a jàpp waaw moom aussi ñu ngi koy wër waxtu pour pour complicité parce que mënuñu concevoir tey ji ngay filmer nit muy adonné wu muy muy def ay crimes. Mhm. des des des des des crimes yow nga taxaw di ko filmer kooku aussi normalement dañ ko war a jàppat pour complicité. Mhm. non seulement pour complicité mais pour non assistance de personnes en danger bi nga xam ne c'est une infraction mhm. par le code pénal du Sénégal donc mu nekk tey jii nii ay situation yoo xam ne nii situation yi déplorable la et moi je demande à ce que la justice fasse son jusqu'à son terme que la justice pénale puisse sévir en tout cas te bu kenn taxaw fii di invoquer ay par exemple dafa àndul ak xelam entre autres. waaw il est con non mais il est conscient de ce qu'il de faire. parce que mi ngi téye mi ngi téye mi ngi téye machette am. di kay di perpétrer ay coups di perpétrer mm. ay coups jusqu'à ce que waa ji daw. donc moom des coups yu violents. des coups violents jusqu'à mm. ce daw donc buñ ko bàyyi woon ak sagom mën na noon jort moom dafa amoon intention rey waa ji. Mm-hmm. parce que. pa paaka moom boo ko yoree di jam nit xooloo fi ngay jam mhm. intention bi nga am mooy intention de tuer donc de ce point de vue là à partir du moment où dossier est en instruction attendons de voir en tout cas la suite à cet événement mais li nga xam a nga par exemple dafa am réclusion criminelle à am réclusion criminelle à perpétuité mm -hmm. nous sommes dans le cadre d'un de d'une tentative de meurtre mhm. donc meurtre moom réclusion criminelle à la bu doon assassinat lañu mën a xalaat réclusion criminelle à perpétuité mm-hmm. maa ngi dégg sa yenn juristes yi di wax mm-hmm. euh, euh, il encore la perpétuité non mm-hmm. parce que nous ne sommes pas mun euh, nekkuñu ci angul assassinat xam nga la différence entre le meurtre et l'assassinat en droit mooy dañ la la l'assassinat c'est un meurtre commis avec préméditation tey Fatima boo boo xeexeen ak diw boo xeexee ñi ak diw rek nga rey ko te yéen ñaar amoo leen woon ay antécédents amoo leen problème antérieur dañ koy jàppee meurtre mais bu fekkente ne par exemple da ngeen a coowoon après nga nekk dinaa la rey dem jindi paaka taxaw ci benn koñ di xaar da nga prémédité def benn guet-apens mooy nga nga nga li ñu tuddee en droit pénal le projet criminel mm-hmm. bu boobaa da nga ko assassiné assassinat mooy doxantoo arme bi mais moom dans dans cette situation là mm-hmm. moom mu dem jëli waaye pour lijjanti loolu. oui mais même dans même même dans la situation factuelle pourquoi mënuma mënuma mënuma wax assassinat bi parce que entre toj oto bi ak ak ak seen loolu bi dafa am amul amul benn distance bi. Hmm. bu amoon benn distance bi ngay wax ne dafa prémédité coup bi. est-ce que comprendre que bu amoon bu amoon benn distance bi ngay wax dafa prémédité coup bi mais dans la situation factuelle lu tax ñu ñu retenir la tentative de meurtre mm-hmm. mooy meurtre il s'adonnait à une pratique de meurtre mais bu fekkoonte ne par exemple dafa toogaat ay fan préparer son projet criminel mm-hmm. bu boobaa dañuy wax assassinat mm-hmm. parce que le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens aux yeux de la loi pénale est considéré comme un assassinat mais la première qualification n'est pas la qualification définitive. Mm-hmm. mën nañu wax ne par exemple kii lii dañ koy toppee ñu dem ba ci jouru procès bi. Mm-hmm. ñu defaat une requalification des faits wala ñu def une disqualification des faits. Mm-hmm. donc au vu de de de la tournure du dossier la tournure des événements. on peut s'attendre aussi à d'autres qualifications. mais mm. là les qualifications provisoirement retenues. Mm-hmm. mooy détention illégale d'armes ak tentative de meurtre. et c'est des c'est des extrême gravité yi nga xamante ne bu la si mm-hmm. placé sous mandat de dépôt non seulement la détention provisoire n'est pas limitée parce que nous sommes en matière criminelle. Mm-hmm. la détention provisoire n'a pas de temps. kii mën na def ci kaso bi dix ans vingt ans balaa ñu koy jugé en la matière Euh, criminelle moom mooy devant la chambre criminelle. chambre criminelle mi ngoog maître leer na cantal ngërëm ñeen na la vraiment merci. Euh, c'est toujours un plaisir. lenn tamit ah. dinaa ko wax. waaw rapidement waa ji ni muy tawee coono bii mu def yëpp. Hmm. xeer képp bu ko jëloon taxaw. nu muy jëlee xeer. lu muy jëlee xeer. ki ko doon vidéo nag moom fi mu taxaw. waaw mais ki waxuma man ki ko doon vidéo waxuma loolu xam nga lu may wax xeer. ma ne xam nga tey. gars yi mais il paraît que waa ji danoo bandi bëti non non dafa takkoon fulaar. non non non takkoon fulaar ah, waaw takkoon fulaar. ndeysaan daw bee waral affaire bi wàcc noonu. ci bëccëg c'est daw bee tax affaire bi wàcc wala lu mu mën a dem mais yow jël sa xeer taxaw. d'accord même boo xamul même boo xamul dara xam nga tey nit ñi. am na yoo xam ne nañ dem jàngi aar touti quoi parce que tamit góor day day day. day saawolof saa mais nag est-ce que contexte bi waaw contexte bi loolu laay wax nii. Mm. est-ce que ñoom nekkuñu woon group contre moom kese. waa non mais yow ki nga jàkkaar lool moom muy def. moom nga jàkkaar lool xam nga nit ki dafa am loo xam ne instinct de survie la. yow kii nga jàkkaar lool bu xamul dara xam bu xamul xamul quoi mais li may wax mooy. mais ragal du fayu de. waaw non non xam nga problème mooy nit ki bi nga ko ragalee rek dafay am double avantage si yow. Hmm. yow waa ji moo ëpp kii. sa tànk képp ta euh, benn benn paaka la yor bu yoroon jaas sax nga ne waaw mais sa tànk moo gën a gudd paaka parce que moom ay loxoom la utiliser. Ah. imaginer nga jël sa tànk door ko ci plexus bi day jaaxaan. plexus kii daa ñii yow traumatisme mën na lu ne. nga wala nga àbb pa partie intime day jaaxaan leneen loolu am na mille kii xam nga góor da ngay xaw a bëri pexe tuuti quoi. nag moom self défense def moo tax. moo tax ma ne par moo tax may wax moo tax may wax li nga xam ne tey nit ki même boo xamul dara. Mm-hmm. pour nga mën ci génn. ci ku mm-hmm. yor paaka wala mm-hmm. même ku yor jaasi wala ku yor nangam. man daal fetal laa xam ne moom. boo jaree nga raam. raamal. gaa yi nee nañ sa su jootal ko nee nañ saa mooy brisili. <laughs> non non brisili tàngoor. <laughs> du ma brûler mais xam nga lii def scène bi dafa dafa metti barke yàlla da nga koy zeraan benn instant da ngay ruus da nga jéppi waa ji. boobu daal la ne saa brisé. <laughs> non man man defuma këm fu ma naan man bi ma def amul règle. amul ceinture. virgule amul règle Badara séréwul <laughs> amul la wax bo lii sax waa ji digle nii ñun dañ ñun suñu aar bi ñu def hmm. daw lañ la njëkk a nooy dawee lañ la a jàng. mooy première chose maam waa moom xamul lu muy dawee quoi. maanaam a am noo maanaam li nga war a jàng mooy am na lu ma mën a dawee. ça dina ma d'accord xam nga mais mais bàyyi waa ji bu lay topp. naan saa saa nag dañu lay nam nam ah. merci beaucoup cantal ngërëm ñeen na la prochainement incha allah nga nga nga dikk gërëm ko bu baax moom Bruce Lee ci ci ci xam-xam bu màcc bi nga xam